dangaa sonn. wóoy yow nag wóoy wóoy bu ma dóor ndamba bi. waaw. man duma kaa diitee la ci kër gi. sama doom bi ngay wax moom rek la naa ko dégg na li ma ko wax naa ko magam nga loolu la doon bi de. yow. waaw mën naa laa may nga toog ci kër sama faaj man waaye booy bi na dem. waaw. jënd sama sama doom la. moo saf. ba dinaa wax ak moom mu dem suba dina xëy. ni muy dem léegi. waaw ku wut fa tax du mën a gontu. fan la jaar. bi muy ñëw fan la jaar. boobu suba gi la ñëw. waaw ban heure jot. waaw waaw ba bàyyi leen may leen ma ba suba ma wutal ko paas. yoru ma paas. waaw waaw dama koy wutal paas. waaw damay wut paas damay wut paas damay wut paas mu dem. damay wut paas mu dem. na dem waaw damay wut paas. waaw damay wut paas mu dem. na dem. na naka ci booy bi nekkul ndox mi de. ah yow ndomb bi nga ma wax di. ak lan la la defaat. am na leneen. te yow moom yaa ko jur te xamoo waaw maa ko nga ne nga ma xam naa ko kay. mu ne mu ne mu ne muy dox day eh. eh, mu ne fas kenn a xale. nekk yéen a bokk la ngay xeeñtu ak li lay metti moom yaa ko xam man maa ngi sama néeg seen yumpaañ yéen a bokk néeg de li la naqaje moom sa néeg la bu la neexee wax ko de. te dëkki góor moom di def yenn yi moom dafa. ah te tamit lépp kenn mënu ko. waaye dégg nga fas yi la fas yi. mooy def nii. jay na ba indi ma sees waay ma toog moom da ngeen ñëw ana ana xanaa da woor waaw ñëw naa ñaanku mi laay wax wala. léegi kat a yem parce que du la jox nga lekk. ah ña boo a yem. ah kii ko mu lekk ña ña gi dama commencé sof man. la sànq ceeb. su ma delloo dama joxe ko jox mu ne du ko lekk loolu. su ma waaw looloo fi am ñànku. déedéet lu aw fi. nay woor kon. bu xëyee da ngay tàngal kafe. kii mënut a woor kii mënut a woor. waaw mënul woor nag man de mënuma woor suba ngoon de. kafe gi ngeen ni waaw waaw déglu ma nag kii nit la comme ñun. kafe gi ngeen ni sekk ci ndogu bi dee leen ko ci denc. mu ngi taal bi waaye ko noonu wax wax ko fay na. waaw waaw waaw déglu rek déglu jaay na kafe gi ñuy sekk ci ndogu bi danañ ko ci wutal kaas dencal ko ko bu bët sa tey ngeen tàngal ko ko ak daggus mburu jox ko ko. waaw moom waxee na ko tàngale boppam ni jaay man. dama koy tere gaz bi kii bu taal bu taalee gaz bi taal boppam. loolu laay bañ. moo taalee sama bopp damay dee de. waaw. waaw waaw. ba café bu amee weñ baax na baax na noonu bëgg naa ko man weñ yi boo ko café bu amee weñ weñ bi dama ko ci bàyyi noonu nga xam ne day naan day naan café gi day saf suukar boo ko yëy boo ko dee tag day saf saf suukar day neex ba dee loolu mosu nekk añam. ana ma numbee Manombe Manombe. loolu fa neex noonu toogal noonu. man aw ma toogaaree dañ maa invité ndogu sama xarit sa jaa moom invité. waaw waaw loolu sax nag doo dem. bañ a dem yàlla bu dem di rey. waaw télé bi dañu ndogu ñu nga naan may. Euh, ci yéen laay njëkk. yow ñaŋ. dëkk bi dañ ko tëj.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 huit heures la ba six heures du matin kenn du génn policier yaa ngi ci dëkk bi fees fi dell yow booy dem marché wax naa ko na nga takk masque su wut ay gants yi ngay laal yooyu nga ko nga kii ko boo ñëwee nga jënd gants yi sànni fóot sa masque passé ba mu tàng nga denc eh, yow ana koy wut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 waaw ñu fa fa see ñoom ñoom ñoom ñuy tele ñuy génn ba fa ñoom ñuy génn di nekk ci mbedd bi. waaw ñoom ñooy aar dëkk bi. ah waaw ñoo koy bu ñu tele ku génn kay ku génn dañ ne ku génn nag corona da lay jàpp. waaw ñoo koy wala ñoo génn. waaw corona da doon jàpp ñoom dañoo waroon toog fenn fi ñoom ñëpp yow ay fetale ku génn ñu ñu ñu ñu lay la. yow dof nga rek. mën ngaa yow ban policier nga gis corona jàpp ko policier yi corona du leen jàpp. dof yi tamit tey. ñun kese lay jàpp. ñu dof yi dégg nga. yow da ngaa dof kon rek kan. yow déedéet dama ne ko moom dof bi lay jàpp. déedéet yow corona du la jàpp. man corona du ma jàpp. lu tax man ne ma ne mbee xamaa waaw man daal wax naa leen li leen wax daal ku ku toog baax na ku toogul yaa xam toog leen daal. mu numé bu fi xoolee ba kole na balaa hmm. police bi ñëw ak ñi maa koy jàpp ak ay xeel jamba ko koo jamba jamba jamba jamba ba fépp di naaj nga xam bu demee rek day dee du ko wàll keneen la xalaat la technique la maa la may boobu wax waaw <coughs> du waxaat technique chaque jour ma jox ko bees du waxaat de du waxaat jële boobu. wax na wax na dem leen dem leen waaw waaw daf rek ngay wax maa maap ko may. wala papi ñu daal dama tay ma dem dogu jël. demal demal waaw demal demal. ma dem demal waaw demal ndogul. Eh. demal ah ah demal. demal ndogul de monsieur yaa ngi ci biti demal ndogul. waaw demal demal demal. demal ba bàyyi ndogul après naa ko woo téléphone. demal demal ndogul demal. ndogu. gën a xam kër gu amee xaj.